nuy ji ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mamaram sa baali sobal yooyu kaay la anta njaay maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy na njëkki jigéenam anta njaay mbokkam taala anta mam maaram sobale bu sobale anta njaay mam bu jaara nuy na ay dëkkandoom nuy ji na njëg bi jigéena soxna anta njaay bokkam taala anta bu sa baale bu anta njaay bokkam taala Samb Sojaara nuyu ji na ay dëkkandoom nuyu ji na njokki jigéena Anta Njaay mbokkam taala Anta nam naa sabaale sabaale jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta mamaaram sabaale sabaale mbokkam kii bambay jaamam jam saayir la jam baatin moo waral mu dib xaadam Cheikh Modou Mamoun Mbacké jam baatin loolu waral borom gaawaan dira kii bambay jaamam jam saayir la jam baatin moo waral mu dib xaadam Moodu Maamun Mbakke jàmbaatin la Daaru Salaam jam saa'ir la jàmbaatin moo waral mu jël xaatam borom Daaru Salaam jam saa'ir la jàmbaatin moo waral mu jël xaatam borom daaru jam saa'ir la jambaati waral mu jiw yanu jëme Tuuba tala anta dem root moo sellal toog tala anta ca tool maam donga yaa ko daan rootal seen jeneer mooy niita Seex Rafal ko jafal ba muy leera Seex Cheikh Rafal borom Tuuba ku jafal maam donga yaa ko daan rootal sa njënër ba muy nii tas Cheikh Rafal sëriñ Tuuba ku jafal ba muy leeral Cheikh Rafal jafal maam borom Tuuba ko jafal maam donga yaa ko daan rootal sa jannar fa muy neetal Seex Ibra Faal Sëriñ Tuuba ko jafal ba muy leer Sëriñ Moodu amee maam Cheikh Rafa la jafal ba muy leer Sëriñ Moodu amin tafal maam Cheikh Rafa la jafal ba muy leer Sëriñ Moodu fal fal maam Cheikh Rafa la jafal ba muy leer sëriñ Modou Fallou Fall maam Cheikh Ibra Fall la jafal ba muy leer sëriñ Modou Fallou Fall maam Cheikh Ibra Fall la jafal ba muy leer sëriñ Modou Fallou Fall maam Cheikh Ibra Fall la jafal ba muy leer Sëriñ Modou Fallou Fall maam Cheikh Ibra Fall la jafal ba muy la moo taxit dendam yaa jib te yëpp naan te yëpp naan te yëpp naan Bamba muy neex soxna jaara yaa ba ni géej mu naan déggatoo maam soxna jaara yaaba liggéey mbambulan mu nan wal déggatoo fi kenn kumar mbaa gantu bay ba ñëwal ah, gantu bay ba ñëwal gantu bay ba déggatoo fi kenn ku mar fii ba Porokhane déggatoo fi kenn ku mar mbaa ku gantu bay ba ñamal fii ba Porokhane déggatoo fi kenn ku mar mbaa ku gantu bay ba ñamal fii ba Porokhane déggatoo fi kenn ku mar mbaa ku gantu bay ba ñamal ne dem na fu ne ngeen gi ceeb day ganale ñi nangoog ñi gànt du te Serigne Saliou dafay dimbilee waaye wal mi dem na fu ne borom jannatul mawaa ñi gànt du te Bamba ñepp lay dimbilee ah waade wal mi dem na fu ne ngeen gi ceeb day ganale ñi nangoog ñi gànt du te Serigne Saliou dafay dimbilee waaye wal mi dem na fu ne ngeen gi ceeb day ganale ñi nangoog ñi gànt du te Bamba ñepp lay dimbilee fi yabu tex ku yablu bañ dàq baa ngi kenn terew noo ko gëm danu texe ndax len gi cee ba faam mu war ku yablu def fii ku yablu bañ dàq baa ngi Saliou ñoo la gëm dañuy texe ndax te Serigne Saliou ñoo la gëm dañuy texe gi cee ba faaw mu wan te wal ñoo la gëm texe ndax den gi ba faaw mu wal borom daara nji bi ñëw ñoo la gëm texe ndax benn gi cee ba faaw mu kay soxna jaara sa doom ji moom la nuy añee di reer nu cee suural wër na Mustafa soxna jaara sa ji moom nuy añee soxna jaara sa doom ji moom la nuy añe di reere kenn mënu nu cee na Mustafa Kayre soxna jaara sa ji moom la nuy añe di reere kenn mënu nu cee na Mustafa Kayre maam jaara sa ji moom la nuy añe di ak ji moom la nuy añe di reere kenn mënu nu cee suural na Mustafa Kayre. Soxna Jaara sa ji moom la nuy añe di reere kenn mënu nu cee suural na Mustafa Kayre. aw kay Soxna Jaara sa ji gën ku nu masa yónni jortu nañ ni Xaadima yónni ku ñu masa yónni. Soxna Jaara sa ji gën ku nu masa sa doom jee gën ku nu masa yónni jortu nan ni xaadima yónni ku ñu masa yónni soxna jaara sa doom jee gën ku nu masa yónni jortu nan ni xaadima yónni ku nu masa yónni maam soxna jaara sa doom jee gën ku nu masa yónni jortu nan ni xaadima yónni ku ñu masa yónni soxna jaara sa doom jee gën ku nu masa yónni jortu nan ni xaadima yónni ku nu daaru duniya jortu nan ni xaadima yónnee ko ñu masa yónnee